asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ci uraas yëpp ñoo ngi leen di nuyu di laaj seen jàmm seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm yàlla na yàlla defal nu jàmm ñu dégg jàmm di gis jàmm yàlla na yàlla sàmm ñu làq ñu aar ñu te làq ñu fa yàq yégul yàlla na yàlla sàmm ñu sàmmal ñu suñu njaboot kër ak àll yàlla na yàlla defal nu li gën ci nun te mu gënal nu ku ñu nar mbugal ba ñu fàtte yàlla yàlla na yàlla la ba nga fàtte ñu ah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah, man de mbay mi sax taxut ma miin ko noonu ah, taxut ma miin ko de eh, tur de tey sax laa ko door a dégg waaye xam naa ne ñàkkul ne siiw na ci biir mbool ci nit ñi waaye man maa ngi koy door a dégg ab taalib bi la ndax ni ma déggee muy waxe moom ab taalib koy waxe yal na yàlla yërëm ko yal na yàlla xaari ko aljanna yal na yàlla dajale ko sëñ Tuubaa yal na yàlla woyofal suuf ci kawam yal na yàlla yàggal saraxam ci loxoy ay mbokkam doomu aadama de kenn ku nekk rek dafa am waxtu woo xam ne boo ca yeggee rek fa nga war a yem moom doo ko weesu eh, yàlla nee na bakkan boo xam ne waxtoom jot na kenn du ko yéexe lu tolloog minute kenn du ko ëppal lu tolloog minute waaye ci waxtu wa képp lañ ko fi jëlee foofee mu yem fa la waroon a yem mënu ko wees te fa la waroon a génne àddina wa ma tadri nafsun la yàlla wax amul benn bokkan bu xam fan lay sa suuf fan ngay génne àddina waaye fa nga war a génne àddina di nga dem fekk fa génne fa àddina loolu moom mooy dogalab yàlla suñ borom yàlla yàlla xaare ko aljanna bi jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam yàlla musal leen musal bépp jullit ci ay oto yal na museel musal jullit ci ay oto boo xam ne ma ngi ca biir yal na yàlla musal jullit ñi ñëpp ci ay oto boo xam ne daf leen a dab ci aw yoon Sëñ Tuubaa nag dafa am fu ñu commencé indi ak commencé e e ci moom ci rakkam yi ne ko dama la wutal demukaay goo xam ne bis boo soxlaa dem dana la yomb ah ba sëñ bi ci buntab sawu ba ca njaarim ba taxaw xool traction awa bi def na auzu billahi mina shaytaani rajim mu ne ko sëñ bi mbaa jàmm mu ne ko ah, jàmm la de waaye kii de bu mu jóg jamono li ëpp ci doomi aadama yi moo leen fii jëlee waaye nag saa yoo xëyee jàkkaarloog moom daal bala ngaa dugg ci moom da ngay wax bismillahi karratayni xam nga fan eh, farjail basara karratayni yanqalibu ilayka albasaru farjail basara karratayni yanqalibu Sëñ Tuubaa ne ko foo taxawee ci kanamam wax ko dugg de dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm ba fa nga jóge woon bismillahi karratayni bismillahi karratayni